ah maa ngi tudd Babacar Ndiaye donc nekk euh, tête de liste bu département de Pikine. Euh, la jeunesse patriotique du Sénégal ñu gën ko xam ci GPS maanaam ndaw yi Pastef yu nekk département de Pikine ñoom ñoo amaloon ndaje ndaje wu jàppale seen i investi euh, di wax ni fii ci Pikine am nañu dix investi cinq ci liste titulaire bi. cinq ci liste suppléant bi waaye ñoom aussi yeneen cinq yoo xamante ni ñu ngi leen investir ci liste nationale bi. maintenant dans le cadre de la campagne effectivement ndaw yi Pastef Pikine organiser meeting bi pour sargal seen i waaye pour jàppale seen i investi loolu tey moo waral ndaje bi ñu nekk ni tey. Euh, loolu kese sax du doléance yi doléance yi bëri na euh, Pikine côté environnement déjà rek ça pose problème ndaxte benn poumon vert bi ñu am muy mbaaw. gis nañu ni ñu nekk ni ñu ko ni ñu koy agressé forêt classée bi gis nañ ni ñu koy agressé technopole bi gis nañ ñu ñu koy agressé xëyu ndaw ñi gis nañ ni mu tàgg témbee euh, sante wax na ko benn hôpital pour presque un million d' habitants là où les normes yi nee nañu pour cent cinquante mille habitants il faut un hôpital l' écart grande ba nga xamante ni loolu rek sans du sans du wax na ko on naa ko que trois là où normes yi la ñuy wax ak li am ute na maanaam jafe-jafe Pikine dafa bëri mais lépp waa commissariat central amuñu ko sapeur pompier amuñu ko ba ci tribunal bi ñuy wax sa nekkul si ñun donc Pikine li ñu fa faral joyanti bëri na mais lépp solo rek mooy euh, bu ñu taxaw ci li manqué nañu taxaw taxawaayu changer soppi taxawaayu defar taxawaayu jubbanti ndaxte kat bu ñu bëggee taxaw taxawaayu lii amul lii amul lii amul day mel ni ba léegi ñu ngi ci opposition bi maintenant nous sommes au pouvoir dañu war a taxaw taxawaayu diagnostiquer situation bi xam ne lii la dégager les stratégies qu'il faut avec des actions ñu sangu tabax Pikine actuellement foofu la ñu toll tey mën nañu ne Pikine am na ministre am na ay DG am na ay PCA il va avoir des députés donc Pikine tey commencé na am ay ndomba tànk commencé na am ay autorités commencé na am ay borom ay ay ay euh, borom daraja te nag pas n'importe lesquels des patriotes ñu gëm réew mi ñu gëm Pikine gëm doole Pikine gëm gëm askanu Pikine gëm xam-xamu Pikine la ñu commencé am. donc taxawaay bi mooy gannaaw bi ñu jañu sikkee xam ne Pikine manque yëpp maintenant essayons de dégager les ki qu'il faut ànd ak nguur gi fi nekk ci bànqaasam yëpp. ñu jéem a soppi Pikine jéem a tabax pikin jëm a defar Pikine mu jëm ci kanam actuellement loolu mooy taxaw bi fi mu toll nii. violence yi peut-être danga may sax may donc ma jàllale benn message bi ñu nekkee Dakar wax naa ci. mu nekk benn vidéo bu viral ñëpp di ko partagé ñenn ñi rafetlu ko ñenn ñi ñoom rafetlu wuñu ko ndax nee nañu kaddu du problème bi mais ci ki kaddu yi jógee mooy problème bi muy suma jëmm ji ñu ma leen di jégalu baax a baax a baax di wax ni euh, maa ngi jégalu ci kaddu yi nga xam ne dérangé na leen waaye terewuñu nag la ma wax ci nervi yooyu noonu mënu laa gëm maa ngi jégalu ci kaddu yi waaye terewul ne la ma wax ci nervi yi man loolu laa gëm bi ñu nekk opposition nekk ci xeex bu metti dañ doon jël ay nervi sol leen ay tenue armé leen ñu ñuy dóor di ñu rey di ñu gaañ di ñu gor ñu jàmmar la ak ñoom état bi fi nekkoon di ko cautionné leen armé leen fay ñuy dal suñu kaw ñu jàmmaarloo ak ñoom ànd ak askanu Sénégal ñi siy dee dee ci ñuy gaañu gaañu ñiy tëdd kaso tëdd kaso ba tey ñu jël réew mi nekk au pouvoir même nervi yooyu noonu continuer dañu gor ay jaas yi dañu dóor dañu bunduxatal dañu fitnaal moo tax ma taxaw wax la ma waxoon te loolu laa gëm ne loolu ñu mérité nous on n'est pas pour la violence la preuve Pastef kenn musul taxaw ne Pastef attaqué na ma Pastef musul attaqué kenn personne parti politique du kenn kuy mës taxaw ne Pastef attaque na ma Pastef a toujours été ci riposte dans la réaction dañ koy attaqué mu défendre mu donc ñun violence waxuñ ci dara mais nag lépp lu xeetoo xeetu nervi nañu xam seen bopp ñun lii ñu yor Sénégal gii du ay caaxaan ndax dañoo payer le prix cher on a payé un lourd tribut pour jot ci réew mi du ay caaxaan dañ ko fas yéene tabax ndax tabax ko obligation la pour ñun force la pour ñun buñ ko kenn yaaxal ku ci mën a jàpp jàpp ci ku ci mën a jàpp taxawal na le boo taxawul leen ñu dal sa kaw bu sew suñu borom